من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bokk yi ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sayidna muhammad ñu ngi nuyu mbokk yi ñi seetaan yépp ku ñu mëna nekk ci réew mi ak ci bitim réew mi yépp ngi leen di nuyu di leen di nuyu suñu cameraman bi tabarakallahu elhaj lo ak itam mbokk yi mu ko bokkal yépp fa tabarakallahu mu mel ni suñu waxtaanu tey fay dellu ci téere suñu borom bi mu di alquran e, li mu làmboo ci ay maana làmboo ko itam ci ay ngëneel mu di téere bu nga xam ne waxi sunu borom subhanahu wataala moo ci nekk mu wàcce ko itam ci gën ji mbindeef mu di sayiduna muhammad mu mel ni alquran laata muy ñëw am na téere yu fi nekkoon waye ginnaw ba mu ñëwé mom alquran ci la folli mbolem téré yi nga xamné nekkon na fi pour rek magayam mu di bu nga xamné fa tabarakallahu la ci kilifa ga waxon rek sayyid cheikh wax ne bi sallallahu alayhi wasallam ñépp ko wara nangul parce que nangul ni ñépp di wax ne téere bu nga xamné Euh, nee na ñi gëmul alquran sax tey chrétien nangu nañ ne téere bu mel ni moom amul di ca joxe misaal ci benn tubaab boo xam ne chrétien la ñu koy tuddee Lamartine nee na Lamartine dafa jàng alquran bi mu ko jàngee ba pare mu ne alquran rek ci laa gis aaye boo jàng doy na un constitution pour un peuple nee na loolu ci alquran rek la ko gis bi mu waxee loolu ba pare yaay ji di ko tooñ ne ko yaa ngi saalik mu ne ko saaliguma dama wax dëgg mu ni téere bu nga xam ne itam jommal na ku nekk te itam ki mu njëkk a jommal mooy ki ko wàcce ci moom mu di sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog bi nga xamee ne alquran wàcc na mu jàng ko daldi xëm ca la waxee ne man mi nga xam ne may gën ji mbindeef man mi nga xam ne itam lépp lu yàlla sàkk man maa tax ma nekk koo xamante ne maa gën ci nit ñi dàq leen a jàng gën leen a dégg arab raw leen itam waaye ma jàng alquran bi mu xamloo ma mu ne ci laa xame ne ki wax lii du nit moo tax usul yu ni dañu wax ne alquran بن كي تعرف دن وحنا لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز ولتعبد نانا ني واخ لا جوغا خامن سونو بروم موكو واتي تي يوننتي بي ايتام لي واتي كو تي يوننتي بي دا فاي وان نيت ني لوتو غي ني لوتو تي اندي لو ملني القران ندخ تاي كو جوغون القران مي بن ايه بوكو بوغي تيغ soo moytuwul fa ngay fanaan mu di lu nga xam ne itam sunu borom moo ko wàcce pour ñu man koo ko jaamoo ndax boo demee booy julli alquran ngay jàng bu nit génnee àddina fa tabaarakallaahu alquran lañ koy jàngal keroog bu nga xam ne ñu ngi koy defal fidaawoo itam alquran lañ koy jàngal moo tax yàlla daf ko wàcce pour ñu man koo ko jaamoo ba tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi nga xamee ne mi ngi tàggatoo pour dem ci la dajale saxaaba yi di waxtaan ak ñoom bi ko saxaaba yi waxee ne ko dafa mel ni daal waxtaan bi ngay waxtaan ak ñun waxtaan la woo xam ne waxtaanu tàggatoo la ka annaha mawidatun baliga yonent bi na leen naam mu ne ko kon nag ñi ngi ñaan nga dénku ñi balaa ngaa dem yonente bi nee na maa ngi leen di dénk jamono boo xamee ne jamono rëbb na jikko yi yàqu nañu nit ñi wuute nañu gëm-gëm yu bokkatuñu nee na boobaa yéen sama xeet ñaar rek laa leen di dénk ñu ne ko mooy ban mu ne na ngeen jàpp ci téere yàlla bi subhaanahu wa taala bi ci des itam mooy na ngeen jàpp ci sama sunna sunna yonente bi sallallahu alayhi mooy lim ñu digal ñu def ko lim ñu tere ñu bàyyi ko ndax loolu lañu yàlla digal yàlla neena na wa ma ataakum rasulu faxuzuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lépp lu leen yonent bi digal bu leen ca sikk sàkk na ngeen ko def waaye itam lu mu leen tere na ngeen ko bàyyi mu di téere bu nga xam ne itam borom bi subhaanahu wa taala nee na man maa ko wàcce waaye itam maa koy aaral sama bopp kenn duma ko aaral loolu mooy dellu ca la Abraha waxoon Abdul Mutalib keroog ba mu bëggee mabbu Kaaba ga ñëw ci abdul mutalib waxtaan ak mom tàggu ko abdul mutalib ne ko man kaaba gi sama yoon nekku ci lima soxla moy samay gelem ndax walil bayt rabbun sawfa yaxmihi ah mu ne ko kaaba gi amna borom bo xamne mo kay aral bopam ku ca bëgg def naka sodul nonu fa tabarakallahu mu diggaale ko ak yow ba mu sab naka non itam borom bi subhanahu wa taala non la waxee ne alquran gannaaw bama ko wacce kenn du ma ko aaral maa koy aaral sama bopp naa ndax inna nahnu naddalna dikra wa inna lahu la xaafizuun yàlla nee na maa koy aaral sama bopp lu ca nit def mu doon lu ma neex ma fay la ca yiw waaye itam lu ca nit def mu doon safaan ba rek du xaar sax ba yowmal xiyaam automatiquement laa lay atte te itam yàlla ni mu koy aare noonu lay aaraale ñi koy jàng moo tax dañu wax ne borom alal moy ar alalam waye borom xam-xam xam-xamam mo kay ar parce que boy teud say alquran ngay jang lemu teud nalaw ba heure bu la neex motax ko gis muy jang alquran kay wu bayiko xel serigne daara yi nga xamne ñoy jangale alquran bi nga daara yi nga xamne ñokay jang rik way ku len joxul yitam na nga baye ak sen alquran ndax amuñu kenn xaar ma amuñu kenn ben soxla buñ xëyee ña nga seen daara di jàngale di jàngale téere yàlla bi kooku bu fekkee da nga jóg pour bëgg ko alal yàlla du la jàppale ndax tooñu la waxu la dara te itam waxu suñu borom subhaanahu wa lay jàngale kon kooku li nga li la mën a musal mooy nga bàyyi ko yoonam mu bàyyi la sa yoon ku nekk jël la la yàlla séddee fa tabarakallahu mu di téere bu nga xam ne itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallama wax na ci benn xadiis nee bu yowmal xiyaamee alquran dafa taxaw bu taxawee ñi nga xam ne ñoo daan dagg seen nelaw fajar di ko jàng ñi nga xam ne ñoo daan dagg seen yitte itam di ko jàng alquran mooy taxaw wax suñu borom ne ko ñii daal tey man dama bëgg a taxaw pour ràmm leen ndax dagg nañ sama yitte dagg nañ seen yitte pour man yàq nañ seeni nelaw pour man bàyyi nañ seeni pour man loolu ñu bàyyi na ngir man man tamit dana leen faye ramm bii ma leen ram ndax wolof dafa wax ne rokki mi rokki waaw ku la xëyal rek nga gontal ko moo tax bu yomal xiyaamee alquran dafay ramm ñu ko daan jàng fa tabaarakallaahu mu di téere bu nga xam ne itam e, tur yiñ ko tuddee bari na te itam arab dafay wax ne kathratul asma tadullu ala sharafil musamma dañ wax ne nit bu fekkee dañ koy tuddee tur yu bari kon dafa wane ne moom dafa tedd moo tax léeg-léeg nga gis ñiy bind moo xam sa sëriñ ngay bind moo xam ci yonente ngay bind balaa ngay wax ci moom danga ko adressé tur wu ne waaw al aalimu al allaama al fahaama ad darraaka lu ne danga ko ko adressé parce que fonk gi nga ko fonk moo tax nanguwula tëb automatiquement rek dal ci moom naka noonu itam alquran bari na tur yu nga xam ne dañ ko koy tuddee te itam tur yooyu li tax ñu ko koy tuddee dafay wane tedd gi mu tedd moom alquran dafay wane itam màgg gi mu màgg moom alquran ndax du waxu yonante du waxu saxaaba du waxu malaaka du waxu jinne waxu sunu borom subhanahu wa taala la bokk na ci tur yi yi ci gën a siiw mooy alquran ak alkitaab dañ koy tuddee itam alfurxaan ba tey dañ koy tuddee ad dikra dañ koy tuddee itam at tanzil waaye yi ci gën a fës mooy baatu alquran ak baatu alkitaab e mu di téere bu nga xam ne itam dafa ñëw pour gindi ñu jëlee ñi ci yoon bu bon dugal ñi ci yoon bu baax fa tabaarakallaahu e mu di téere bu nga xam ne itam lu ne mën na sàppi ba mu des alquran ndax léeg-léeg nit dëkkee di lekk ceeb bu demee dem ba si yàgg da ngay dégg mu ne man tey ceeb daf ma sàppi daal di wax soxna si ne ko changer plan bi defal mboroxe wala nga def suppu kàññe wala nga def leneen pour wane ne ceeb daf ko sàppi naka noonu itam lu ne mën na sàppi doomu aadama ba mu des alquran bis boo koy gën di jàng nu muy gën di bëree mu lay gën a neex nu muy gën di bëree ngay gëna a sentir ca bopp nu muy gën di bëree tiyaaba yi di gën a bëri waaye nag ci kaw nga defee ko façon bu ñu waxee ndax bëri na kuy jàng alquran te soo moytuwul alquran far daf koy rëbb ndax li ñu bëgg mooy boo koy jàng fa tabaarakallaahu da ngay jëfandikoo lam la wax yamula tere nga bayiko ko yamula digale itam nga def ko waye saa di jang alquran ba pare ah te yow lam la digal defoko ko lam la tere bayiwoko ko taxul ñi wax kon fa tabarakallah mu melni, ni téere la bu nga xam li ci nek ci ngeenel buñu ko bëggee wax duñu fi jógee li ci nek ci ay maana buñu ko bëggee wax duñu ci li fi nekk ci yiw buñu ko bëgge wax duñu fi joggé ndax màggaayam foog naa buñ ci doon wax fi ba yowmal xiyaam itam du tax mu jeex ndax waxu sunu borom la subhanahu wa taala mudi tere bu nga xamne itam lépp lu way soxla ma nga ca ndax sunu borom nee ma faratna fil kitab min shay amul lenn luñu bàyyi ci alquran lu way soxla rek bo demé ci alquran di ko ci fek e fa tabarakallahu mu melni li ñuy mayoon ci temps jeex na ñi di leen jox dig daje alxamis bii di dellu si ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission xam sa diine ngeen ànd kook seen site internet El Vision Média ki leen doon defal waxtaan bi di seen mbokk seen xarit seen wëllëre Babacar Sàlla bu ko defee rek kon ñu ngi leen di jox dig daje alxamis bii di ñëw bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha wa bnayhumu shibtayni aalaamil huda وبصحبه وتابعين لهم فهم ساداتنا أهل المكارم والندى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته